Euh, immigration clandestine dafa commencé waat judd ñu ngi judduwaat mhm. donc xale yi ñu ngi jëlaat euh, yoonu ndox mi ak yoonu suuf si sax ñu liggéey bokk rek ci accompagnement mhm. bu nu xasee ba yegsi ba teg seeni bagage ñun mën nañ leen di accompagner mhm. mais pour nga leen di xamal ne formation dañ ko war a indaale parce que le cas d'Italie xam nga koo xam ne xelam neexul nga romb ko di dem sa yoon mu jël sa bakkan kooku xam nga dañuy daal di wax ndogul yàlla